daal dañu amul maire parce que lii parce que xam lu ma mënut a comprendre nga ma ne lu ma mënut a comprendre fii ci Mbour yow mënoo dëkk Mbour yow géej gi même pas deux kilomètres ñuy am problème mu ndox quoi mais nañu defar ay conduire yoo xam ne day dem mais problème mu maire daal la ñu am fii Mbour maire bi liggéeyut waaw maire bi ah man Ousmane Dione laa tudd fii coose est fii laa tudd dafa liggéeyul nañ def fi ay kóndéer ndox mi dem ci géej gi waaw parce bi sonn nañ lool. yéen ñu ngi leen di sàkku ndimbal si suñu koñ bi ni mu mel idoone taw bi yàgg na fi lii yàgg na fi ba fi tali bi amagul lii amagu fi tali yu bon yi moo fi indi lii ñëw defar fi tali fàllu si la ñun dimbale wu jàppalewuñu ci dara man dem naa ba mairie ànd ak sama nijaay bi nga xamee ne moom sama yaay ñoo bokk ndey baay moom fàllu si laay ànd keroog ba ñu defar suñu kër. ay canal dem naa ba foofu gis ñu defa suñu kër ay canal Fallou na yeb la gaara kaat kaatam ñu defa suñu kër ay canal man leen ngeen ñëw dimbali ñu ci ONCAV ndax ndox mi bari na man sama néeg baa ngee fees dell amu fu ma toggee añ amu fu ma toogal sama doom yi amu fu ma fanaan sama kër gaa ngee fees dell te wóoru ay xale laa yoroon naa mën naa sote mën naa def dara kër yëpp a fees nañu sonn nañ nañu dimbali ngir yàlla gënante ba ñëw defaral ñu suñu ONCAV gi sonn nañ te bu wate amee ñu ñëw jiital la yow man damay feebar sax ñu ma ca kaw lal ba yóbbu ma dem wate ji nañ ñëw dimbali ñu ngir yàlla ak yeneen ba defaral ñu suñu kon bi sonn nañ sonn nañ torop ay xale lañu yor suñu doom yëpp feebar nañ sëbër nañ ndax ndox may xet. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm waaw sunu koñ bi de lii musta musu koo mel musta mel nii ñun sunu koñ bi fii leen di nekkoon depuis jamono Moussa yi nekk fii ci àll bi nekk fii toog fii ba yàlla dogal ñu lot seen yu fii ñu nekk fii après njaboot bi fi ne nii li fi ne ci kër yi ay ëpp na ay junni junni kër koñ bi après jamono yooyu amul ndox amul dara ci buur ci jàmmu gel dee waaw dañoo nekk fii saawaay yàgg fi lool nekk ci di liggéey daanu sunuy doole am fi ay kër nekk fi ay sunuy njaboot nekk fii saawaay coono fi bu ne daj nañ ko fi sunu sunu place bi ñu ñëw defal ñu fi ay tali boo xam ne tali bi baaxul tali bi ñëw yàqal ñu sunu koñ bi yëpp sonn nañ lool nag dañuy woote ndimbal ñu ñëpp woote gouvernement bi ndimbal mu defal ñu fi canal bu baax ñu jógee ci coono bi ndax coono bi métti na coono bi métti na ci njaboot yi sonn nañ ba ñu teddee duñu nelaw boo ñu demee liggéey du am jàmm sunu xol yi tàng na sunu xol yi sedduwul ñu bëgg nag ngeen defal ñu ngir yàlla ak yonent bi jàppale leen ñu sunu koñ bi ngeen jëleel ñu fi ndox bi doon ñun itam ñu bokk ci citoyen réew mi ñu bokk ci famille euh, réew mi di jàppale njaboot bi te kër yi yëpp fi ne kër yi yëpp inondé nañ kenn amul foo dugg kenn amul foo tëdd dañoo sonn na wax dëgg yàlla nag ngeen bugg ñu ñu di leen ñaan dimbale ngeen jàppale ñu jàppale famille bi jàppale njaboot bi jërëjëf ah daawul mel nii fii daawul mel nii dañ fii def benn kamb boo xam ne benn foos foos boo xam ne foos perri la foos bi amul kanaal amul dara ñëw yàq ko koñ bi léegi amatul benn ndox buy génn ndox mi yëpp di circuler suñu koñ bi mënatuñoo tëdd nelaw borom famille bu dem liggéey sax sa xol waaw assainissement dara borom kër bu dem liggéey sax du mën a dem liggéey du xolam du toog man su ma gisee xiin na damay daw ñëw saa su ne bu ma gisee xiin sax damay daw ñëw wóor na wóor yàlla te damay faraatu dépense rek wóor na saa borom bu ma gisee ku ma mën a dimbale te yàlla rek a tax ngeen dimbal ñu yàlla rek a dëgg yàlla ñoo ngi fii ci onk man Fatou gien ñu gën ma xam ci Thérèse pour sama mbokk yi may sétane waaw ñun fi ci onkat sañ mur ñun ñu ndox mi donc ñun dañ ñoo wut ci dara ci dara waxu ñu pour ndox mi donc dañuy kaasal suñu bop pour lepp onkaat sañ fii nii boo ko boolewuñu ci dara tout récemment ceeb bi doon sédélé fi ki Macky Sall ki nguur gi ñun gisunu dara but ba but nak koñ bee fee commencement tali ba fii ba pare gisunu dara xamuñu xamuñu ci minu dara amuñu dara ra nga gànnaar dal bopam la fa nekkal ku nekk sa bop nga nekkal ñun daal ñu ngi ni APR faral politiquel ko ba sonu politiquel ko ba sonu man mi di wax ni sama yaay la politiquel fi ba sonu yaa ngi deg Macky Sall lañu faral ñun ñi ñepp mom lañu votel fi amul ku fi votelul Macky Sall waaw yaa ngi deg mais ñun ndox mi ba pa bi fi sama nijaay jëkkër tuddé na Macky Sall doom na siiw tuddé na Macky Sall doom mais taxul lamu tuddé Macky Sall ndax bëgg ko waye taxul kërëm nga ni fess ndox Macky Sall xamuko way bëgg Macky Sall tax mu tuddé ko dom mi ngi ni way kërëm mi ngi fess del li tali ñu fi def la tali bi bon bi ñu fi def la ndax avant avant tali bi ndox mi da daan dem suuf kessé la won waaye bañ ñu défalé li ba défalu ñu kanaar fi ndox mi di jallé amuñu fu ndox mi di jallé amuñu da day dugg ba suru kër tay kèn añut ñi ngi ni ba légui kèn añut kèn añut kèn kèn añut kèn ñun ki jité ñun ko jité mbur fallu si la la tuddu ñun fallu si lu wax ñu way wax ndax ñew nañ jël ñu audience mënuma dara ci ndox mi la ci wax mo ñu wax carrément mënu ñu dara ci ndox mi man la faatu jee maa dëkk onkar mo ñu recevoir mi ngi ni xamé na ma maag pël bee waaw ni ñi wax nëbbuñu ko làquñu ko fi bu ñëwee fekk ñu fi waaw tay fu ñu tëdd sax amu amuñu ko ñu ba légui kenn añut kenn añut ñi ngi ni ku nekk yaangi sa kër waaw ku nekk yaangi ni taxaw genn ci mbéddi yi kenn añut kenn reer salaamaaleykum mbokk yi onkar ah ñun de ñu ngi onkat sànc problème bi ngeen gis ni yàgg na fi amuñu ku ñuy dem ku ñuy jàppale ñun pour te dire mun nañu ne amuñu chef de quartier gisuñu gisuñu ndimbal boo xam ne vraiment euh, maire defal lañ ko jox parce que man mii dem naa maire du benn du ñaar pour problème inondation bi mais maire dafa ne actuellement nii mun mënut a recevoir mënut a mënuñu fajal presque ndox mi wax nañ be sonn nag ñu ngi gërëm waa sappoor nag ñoom ñu ngi def seen kéemtu laay kattan ñu ngi gërëm waa sappoor dégg nga def nañ lu tout chaque jour ñu ñëw mais nag sappoor dañoo sonn dañoo sonn inondation bi bu ñu defaree tali bi ba léegi ah bu ñu defaree tali bi ba léegi nii la mel tali bi moo yàq suñu koñ fu mu nekk suñu kër yi yëpp suñu ravitaillement tooy nañu te ñun suñu benn ndimbal te suñu ko fi am dégg nga musuñu fi am benn ndimbal. te tali baa ngi nii saam bu tawee ñun kenn du mun a génn sonn nañu nag bu dee mur am na presque ki fi toogal gouvernement bi nañu jàppale bu dee nag mënuñoo jàppale ñun ñu wax président de la république dégg ngeen ah lii mooy presque suñu mébét sonn nañu nag sonn nañu waaw.